Bienvenue sur votre site d'information Tivactu TV, la chaîne de toute l'actualité. émission bi door waar la jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doon di jaal mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doon di jaal jóg sa jëm teel sagaru tayal sama xel fàtt ngërëm laay defaat fu ma di xel suba laay fexeel xeex ko tey mu mat xewul du amaat la ëpp sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni mes yëpp misaal la amee góor yaa jëf mbokk yi asalaamaaleykum nii leen bu baax a baax a baax ci Kibacki TV te nag seen reportage fii si préfecture fekk si Serigne Mbaye Seck cordonnier bu mag bi sëñ lay nuyu. lay fay. nii bi day def naa si lu vingt ans fan nga jàngee métier pir fii nii pir am benn di jaay bu wax mu duñ moo ma jàngal métier nga def si plus de vingt ans waaw mais kañ nga installé fii nii à Tivaouane Tivaouane maa ngi fi installé wu en tey boo ñu doon wax métier cordonnier mooy lan lan nga ñuy wax waaw ah, cordonnier moom métier mu yaatu la parce que li ko tënk yëpp daal mooy ay dàll daal la la gën a yëngu daal ceinture saak yooyu yëpp dañ koy defar daal ay calpe yooyu yëpp si wàllu cordonnier la daal. mais cordonnier ce que fii a dox. non doxee quoi parce que Tivaouane ay benn benn ngay liggéey ay ñaar ay dix paires affaire yooyu yoon parce que amul ay julo quoi ñoo xam ne dañuy ñëw di jënd si di jaay yi amul Tivaouane quoi fii li ñu fi am mooy ci nga xam da ngaa xamante ak ñoom. lay liggéeyloo par commande yooyu rek daal. mais est-ce que yow waroo mën a am sa imagination boo ko teg say ay nit nga jéem a dugg si monde professionnel bi defar ci exporté waaw am na am na am na ñoo xam te ne si maa ngi daal ñu ngi dem di jaay ay Dakar ñoo xam Tamba lañ dëkkoon dama ne daan liggéeyal daal da di ñëw ma liggéeyal la daal nga dem ñu gis ko commande ma si ma yóbbante leen ñu jaay te du ma leen xam sax parce que dañuy gis liggéey bi rek doy lu ko rafet lu ko daal mu ñëw ma liggéey leen. waaw envoyé leen ko ñu envoyé sama xaalis ñu def. tey sa digganteeg say clients fii à Tivaouane nan la demee. bon rafet na nag wax dëgg yàlla parce que clients yi ma fi am ay clients yi fidèles lan parce que des fois ñu ñëw xam nga rek ak sëñ Bay Seck naqaree liggéeyloo yooyu dañuy wax affaire yooyu noonu te organisé demeewul noonu mais sama diggante ñu wax dëgg yàlla fidélité am na si daal wax dëgg yàlla parce que ñoom ban ma jàppee ba tey bàyyi bàyyiwu ma leen bàyyiwu ma ñoom bàyyiwu ma leen. wax dëgg yàlla chaque jour man dañuy liggéeyloo su ma toogee sax tëju ma dañ may woo téléphone foo nekk kaay liggéeyal ma lii wax dëgg yàlla loolu bi jamono ji ak li xew si Sénégal mbaa dara seen bon waaw parce que heure bii daan na fekk nga commencé veer di liggéey commande yi di bari mais ak li nga xam te ne dafa ñëw foogi wuñ ko woon tamit mu ñëw dal suñu kaw mënuñu si dara tam xanaa sante ko yàlla rek. wax dëgg yàlla téye na économie trop trop trop trop nag wax dëgg fa yàlla waaw. place bi nga nekk yaa ko moom wala da koo déggee di ko fay. place bi dama fi ñëw bi ma fi jógee bi may ñëwee en 2002 dama doon ut place si si kanam sax laa doon ut place quoi ak si marché bi ma ma seet seet amul. après si la chef de gare gi nekkoon fii de Fada Dabakh ñang sama xarit papa la woon si la ma waxee ñoo installé fii wax wax ko ak ak ak ak euh, kii. chef district bi ñu daan may jox fii quoi autant sax mel woon ni mbaar la woon mbaar la woon après si la jënd buvette bi teg ko si boobu ba tey nag man ak ñoom ñoo fi nekk fayu mu ko nag moom wax dëgg yàlla mais ñoom ñoo ma ko jox daal waa gaa bi ñoo ma ko jox bu ñu moom tamit dañ koo soxlawaat it damay dem rek bàyyi comme ñoom tuuti fa ne tey sa liggéey bi nga ko commencé ba fii à Tivaouane lan moo la si gën a naqari loo xamante ni dal na la ba doo mu nekk loo xam ne naqari na la trop si sama diggante ak client non amu si quoi amu si wala boog fàtte naa ko. mais am na si loo xamante ni neex na la waaw trop trop am na si moom parce que liggéey moom wax dëgg yàlla pour mu wax la dëgg rek lu ne am naa ko si waaw li si nit di am yëpp am naa ko si wax dëgg fa yàlla li am yëpp am naa ko si daal wax dëgg yàlla am naa si ay nit ñu baax am naa si am naa si maa ngi si faj samay soxla si laay dund ba ba tey si laa takk jabar si laa ami doom lépp daal. wax dëgg fa yàlla réccu ko daal. kon daal yow liggéey bi li nga yëpp gis nga ni fay na la. fay na ma wax dëgg fa yàlla na ma moom wax dëgg fa ce que xal mën nañu xalaat at yii wala lu yàggul dara a yaatal xale yoo xamante ne ñoom defuñu seet loolu moom dëgg la ay xale moom xale ñoo nangootul a jàngi métier parce que léegi kuy jàngi métier sax nga gisul loolu mi kuy ñëw ni la am sama doom dama ko bëgg nga jàngal ko métier wala leen amatul. fii man ak Abdou ñoo fi nekk muy sama emprunté di sama xarit sax mën naa ni jàppe ma ko emprunté ñun ñaar daal ñoo fi nekk booba tey ñun daal ñaar ñoo fi nekk di liggéey bu keneen ñëwaatoon tamit ma damay jàngi métier aussi dama naa ko ñëwal parce que tamit métier boo xam ne dama koo jàngal kon tam dama ko war a mën a jàngal ay nit daal mais leneen a laaj a yomb est ce que loolu waaw waaw loolu moom dëgg la moom boo xam ko dañee bu njëkk te daan ci yëngu xam nga ni yamuta ak léegi bu njëkk wax dëgg yàlla neexoon na moom daawoo daaw daawoo faale kenn da nga naa am xaalis parce que boobu yéen rek yaa fi nekk di liggéey daal du la neexee di ko jaay prix bu la neex mais léegi ak xam nga rek importation bi chinois yi tamit affaire yooyu noonu dugg si bi loolu tamit yàq na suñu liggéey daal te tam mënuñu si dara parce que am na ñoo xam tam moo leen jox liggéey bari na si boo yoo xam ne ñu ngi liggéey daal di chinois yi dañuy jaay pour am pour gagner seen vie quoi àdduna moom noonu la rek ku nekk li nga war a lekk rek ngay lekk daal. liggéey boo nekk dafa am ay outils spécifiques yow mën nañu xam exactement yan fi liggéey matière bi yëpp presque plastique la affaire kaw su daal parce que kol laay liggéey ak crêpe ak toile ciré bi ak lu may liggéey daal. ak lees yooyu yëpp daal te yooyu yëpp dañ koy importer daal am na si yoo xam te nag fi leen koy liggéey muy crêpe bi moom fi leen koy liggéey daal MDS dañ koy liggéey Sénégal. matériel bi yomb na wala yombul. non yombul parce que des fois da koy gis nii yaakaar dafa yomb mais yombul bala nga doon xam ne yomb rek ñu ànd tey ji ma yor benn cinquante mille dugg si bi jënd ko matériel suñu paree si mbuus lan ma koy ma takk ko nii yomb la di yombul moom wax dëgg yàlla yombul seer na trop parce que koo ko waxee du ko gëm mais seer na trop. sëñ tey waa Tiva ak TV la seet seen rubrique reportage Ramadan sa kàddu bu mujj lan lay doon ak lan ngay wax say client ak waa waaw xanaa di leen gërëm rek di gërëm waa gépp parce que fi laa juddoo ngi métier rek moo fi génne ma jàngi métier pare damaa ñëwaat di leen gërëm ñu dëkk dëkk bu rafet daal man ak waa Tivaouane gépp samay xarit. ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di gërëm samay xarit surtout di gërëm samay clients yi di gërëm clients yeeg ñëpp daal wax dëgg fa yàlla yéen tamit di rafetlu seen liggéey parce que itam dafa baax si dëkk daal seen genre gi ñëw di wane di waa dëkk bi liggéey dafa baax si dëkk bi quoi am na ñoo xam te ne tey ñu ngi toog seen kër xamuñu ne Tivaouane sax am na ñuy liggéey yenn yi daal comme bu ñu amee ñu koy wane dañuy sant daal dañ leen sant daal yéen daal wax dëgg yàlla. jërëjëf Seydou. waaw merci beaucoup Doudou Niang yow moom ku baax nga daal merci beaucoup.